mbokk yi dal leen ak ku ci nekk ñu nuyu ko bu baax a baax ci turam ak santam rafetlu seen ànd ak ñun ci subaak léegi ba tey jii nag ah, le rendez-vous de Sénégal 7 ah, ah mooy le rendez-vous du donner du recevoir chaque jour ma faral di ko wax ne leen chaque fois dama fi dalal koo xam te ne ni day habilité ngir waxtaan ak ñun ci réew mi ak tolluwaay bi moo tax tey jii amatina mbégte ah àndaat ci keneen koo xam te ne nii kii moom sama sœur la te yàgg nañu di def ay émission ensemble donc moo tax plaisir la may def ak moom émission donc honorable député Rocky Ndiaye donc mu jóge ba kaw Kaolack donc ñëw ngir teewee ci émission bi yéen itam yéen ñu ñuy suivant à travers nos différentes plateformes digitales commenter leen liker leen waaye partager leen ah ñu defandoog yéen émission bu bu neex macha allah honorable euh, c'est un plaisir ñu dalal la bisimilah salaamaaleykum. Euh, Mm-hmm. ñu ngi lay nuyu bu baax di la eh, di nuyu kilifa rajo bi ak mm-hmm. télé bi mm-hmm. di nuyu collaborateurs yi nga xam ñoo nga bokkal di liggéey fii mais nag di nuyu waa Saalum waaw di nuyu waa Saalum yëpp yëpp ma kenn ci njiitalu kilifa diine ya kilifa aada ya eh, coordination ba nga xam ca laa bokk muy Diomaye président di nuyu ñëpp bàyyi ma kenn nuyu nag bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñooy la jeunesse mhm. patriotique de Kaolack mhm. mais aussi les femmes de Kaolack maa ngi leen di nuyu bu baax waa Kaolack yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax képp ku nekk ci Sénégal moo xam ci biti réew nga nekk itam cant ak ngërëm ñeel na la merci beaucoup alors honorable euh, Kaolack gi nga wax sax man moo tax foofu laay dooree entretien bi puisque li ñu war a wax bëri na trop mais mm-hmm. Kaolack donc qu'est-ce te a été ci seen victoire bi ndax man Kaolack euh, Euh, liñ daan seetlu mooy dëkk la boo xam te ne nii dëkku nguur la comme ni ñu ko daan waxee. <laughs> donc mais bi on a vu euh, victoire bi seen côté foofu noonu et de la plus belle des manières quest a été déterminant honorable waaw euh, d'abord je vais commencer par féliciter mmh. tous les Saloum Saloum mmh. parce que duma limité wu ci Kaolack commune donc parce mm-hmm. que euh, man maa nekkoon responsable Euh, directoire campagne bu région de Kaolack mhm, mhm. Euh, donc doon euh, collaborer ak Nioro mhm. ak Guéguinéo donc ñu gis ne dans la région de Kaolack coalition Diomaye président def fa gagné haut mais main mais duñ fa yem sax dans la région de Kaffrine wax dëgg yàlla foofu tamit ngeen gis ndam lu am solo nga xam ne nii Euh, saalum saalum yi euh, am nañu ko mhm. euh, te jagleel ko ñi nga xam ne moom mooy coalition Diomaye président mhm. donc foofu dañ leen di jaajëfal bu baax di leen félicité mhm. di sant yàlla bu baax a baax nag bi nga xamee ne Sénégalais yëpp décidé nañ un changement décidé nañ une rupture saalum saalum desuñ si ginnaaw donc loolu dañ ciy sant yàlla bu baax ñu jàppoon ne tamit c'était normal parce que boo xoolee ñu suñu bi ñuy battre campagne c'était pas du tout difficile Mm, euh, ñëpp ñëpp gisoon nañ sorties yi nga xam ne daan nañ ko def mm-hmm. au niveau de Kaolack au niveau de la commune aussi bien dans le département mm-hmm. Euh, fu ñu dem rek euh, ñi population bi ñoom ñooñu ñu doon accueillir. Mhm. ñoo ñu doon accompagner. Mhm. ñoom sax ñoo doon appuyer. Mhm. donc c' était pas du tout difficile. ni nga ko waxee nag léegi Kaolack dañu doon wax naan wala boog Saalum dañu daan wax ah, naan. Euh, dëkk dëkk kii lii la woon boo xam ne nii nguur da ci mus a am doole. mais boo xoolee depuis tendance yi nga xam ne ni dégagé wu na ci locale ya. dans la commune de Kaolack boo xoolee. nekkul ci loxo pouvoir mhm. donc ñu ñëw si législative yi mhm. euh, la commune de Kaolack toujours coalition yooyu da ko gañe woon waaw donc ñooñu yàgg nañu woon ginnaaw ñi nga xam ne ne ñoom ñooy nguur gi fi nekk mhm. donc fi nga xam ne parti waaw parti yi ñu dese woon <laughs> moom moo nekkoon commune rural yi nga xam ne ñoom ñoo composé les départements de Kaolack de Nioro ak euh, Guéguénéo donc yàlla def nag ba cette fois-ci ñoom ci bopp ñu njëkk décidé sax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune ville yi hmm. donc message bi yàgg nañ ko joxe hmm. euh, xëy na liñ naan dañu gisu doon ni mu ngi ñëw mais yegg si na te bi yegg see neex na alors déjà victoire bi tamit am ci Sénégal fi mu toll nii lii am am na ba pare hmm. euh, lan la ñu mën a xaarandi ci la coalition Diomaye président fi mu toll bon coalition Diomaye président euh, balaa ma ci àddu d'abord ñuy remercier ki nga xam ne nii Euh, tey balaa ñu naan coalition président moom la ñuy njëkkee muy le président Ousmane Sonko. Mhm. di ko ñaanal jàmm rek ak wér ni ma koy faral di tey chaque jour. Euh, dama toog assemblée benn jour sama benn sortie ma ne leen le président Ousmane Sonko ku mu joxoñ da ngay dem. Mhm. Euh, te defe naa ne bi mu joxe ne Diomaye c'était tellement facile. Mhm. pour que pour kii bi victoire bi. leer te pare leer na bëri na écart bi yaatu na. Euh, li ñuy xaar si ñoom nag mooy li nga xam ne nii nekkoon na fi bépp 960 jusqu'à nos jours. Mm-hmm. Mm, tey jii soo gisee suñu suñu suñu discours bu gën a bëri ñu koy porté bu gën a euh, bi ñuy gën di porté biir Pastef mm-hmm. biir la coalition Diomaye mooy que les Sénégalais li ñu moom. Mm-hmm. ñu delloo leen ko. li ñëpp moom ñëpp jot si. donc loolu noonu bokk na si li nga xam ne ni Sénégalais yi ñu ngi koy xaar si ñoom. mais aussi ñu teg programme yu am solo euh, jëmale ko ci askan bi. jëmale ko si secteur yu bëree bëree bëri donc ci programme yooyu noonu aussi sénégalais ñu ngi leen siy xaar su ma jëlee man saalum saalum la kon à chaque fois su may wax damay wax ci li nga xam ne daal daan mooy kii mooy mbay mi mhm. boo xoolee suñu programme Diomaye président mbay mi dañu dañu dañ ko dañu jël agriculture daanaka dara appliqué li nga xam ne ni moom mooy le protocole du Maputo mhm. mi nga xam ne dafa stipuler woon li nga xam mooy agriculture mhm. euh, jox ko 10 pour cent budget Sénégal. donc 10 pour cent budget bi suñ ko xoolee dafay équivaut à 700 cent 700 milliards cent milliards au lieu de 100 milliards bi nga xam ne ni moom la fi euh, nguur gi fi nekk. Hmm. joxe woon donc loolu ça c'est une bonne nouvelle pour les hmm, Sénégalais donc boo jëlee lu yëpp ni 700 milliards nga nga def ko ci mbay rek defe naa ne yaa ngi waajal bu baax li nga xam ne ni moom mooy autosuffisance alimentaire mais ci wàllu ci wàllu mbay moomu Euh, ndaxte politique agricole ci réew mi dañ doon dund chaque jour éternel recommencement mhm. fi mu toll nii yan yan ndax war nañoo mën a suñu xel war naa mën a dal ci ne mhm. dinañu yegg ci rupture mhm. ci wàllu recommencement boobu noonu ñu doon nemmeeku ci politique agricole waaw politique agricole boobu noonu dafa liñ si indi sax dafa am solo mm. parce que boo xoolee ñoom dañu jug pour financer d'abord l'agriculture après le financement de l'agriculture que ñu jël des fonds jox ko jagleel ko agriculture ba pare accompagner l'agriculture en teg li nga xam ne après agriculture bi teg industrialisation maanaam matière première bi nga xam ne jëlee nañ ko ci agriculture mhm. jël ko yóbbu ko si industrie mhm. foofu di nga fa am emploi mhm. bi nga xam ne ni tey des jeunes bi nga xam ne nii tey ñëpp xam nañ ne ça fait défaut dans pays foofu di nga régler un problème mais après ça aussi ñu gis ne euh, financement bi nga xam ne moo war a li nga xam ne moo war a financer euh, euh, agriculture boobu noonu mooy banque bi nga xam ne nii mooy banque Euh, euh, banque sénégalaise de de développement bi nga xam ne nii fas ne nañ ko teg incha allah rabi. ngir mu financer li nga xam ne moom mooy moom mooy agriculture. Mhm. te ak ah, banque boobu ba tey c'est des sénégalais ñoom ñoo koy ñoo koy ñoo koy financer. ñoom ñoo koy financer euh, loolu pour man lu baax la loo xam ne ni dafay jëm si li nga xam ne ni moom mooy réew mi. Mhm. mais aussi lu baax la si li nga xam ne moom mooy dem. si si si agriculture mooy banque publique d'investissement du Sénégal. Mhm. donc boobu la Bassirou Diomaye Diakhar Faye teg sur la table parce que foofu ñi ko jiitu ñëpp ñi ko jiitu ñëpp foofu dañ cee lajj mhm. euh, ñu koy ñaanal yàlla mu mu réussir ci bu baax a baax a baax mhm. euh, mais ci wàllu woowee tamit maa ngi gis au delà de banque bi déjà banque bi nu ñu ci mën a jotee nga nga expliquer ñu quoi d'une manière très ramassée rek pour gars yi mën a xam lan de quoi de quoi il s'agit quoi. xam nga dafa am euh, ay banque d'investissement yoo xam ne amoon na fi Sénégal su jëlee exemple DER Fonds JIP c'est des banques de financement BN2. Mhm. moom da koy nar a jël regrouper ko yépp en une seule banque benn banque lay doon. banque bi mooy la banque. publique d'investissement du Sénégal. c'est te banque boobu noonu dañ nar a jël diaspora doole ji nga xam ne jaspora daan na ko def ci réew mi. ñu jël ko viré ko ci banque boobu noonu mooy financement boo xam ne finance diaspora bi dinañ si contribuer ba pare jaarale ko si banque boobu noonu. ngir mu contribuer ci li nga xam ne moom mooy. parce que diaspora bi rek mën na développer agriculture mhm. donc loolu dañuy wane kii bi nga xam ne ni euh, euh, rôle bi nga xam ne diaspora mu ngi ko war a jouer si réew mi. Mhm. te ñu waroon leen tegal ay conditions yoo xam ne nii ñoom dinañ fa jaaree. contribuer si développement réew mi mhm. donc Bassirou Diomaye loolu teg sur la table loolu c'est important ci leneen lu mu teg ci table bi tamit maa ngi ko dégg man parce que yaa ma xëcc ci agricole bi mhm. mais bi yoon ci wàllu économie mhm. maa ngi gis mu naan dañuy mettre en place benn modèle économique ah, bu novateur sax la wax ah, boo xamante ne nii fi ñu koy centré du lenn lu dul industrialisation ndax moom ci wàllu woowee tamit dina am nga yàqin ne selon li ngeen teg ci ay stratégie ne dina réussir foo xamante ne nii ñi ko ñi ko jiitu woon ñëpp. Mm-hmm. côté boobu tamit dañ cee dañ cee échoué. xam nga euh, sànq samay kàddu dama ne après agriculture bi dañuy waajal industrialisation. te industrialisation boobu noonu. Mhm. pour nga def ko mu réussir dëgg-dëgg il faut il faut il te faut benn matière première. matière première boobu nag mooy li nga xam ne nii dinañ ko jëlee ci mbay mi wala ñu koy jël di ko importer brute mhm. ñun dañ koy jël jaarale ko ci industrialisation. créer des usines ba pare daal di ko transformer. Mhm. donc loolu mooy li nga xam ne nii c'est prévu dans le programme et ñuy am yaakaar bu baax dina en attendant la réalisation yan yoon lañ mën a aw. mën mën a réaliser wu parce que tamit programme baax na waaye tamit. lu euh, lu waaw yoon yi ñu war a am. aw puisque le mardi bu soobee yàlla. wala wala ma bàyyi ñu paree Bassirou dina doxal ànd ak magam bi nga xam ne mooy le président Ousmane Sonko. te ñëpp dinañ gis. lu leer incha allah serment bi incha allah mm-hmm. donc déjà. ñu tàmmaloon ñu duñu ko defal ci lieu bu yaatu. Mm-hmm. ñëpp saafonte bi la yor lieu bi c'est privé. Mm-hmm. Euh, lan lay wane message la bu ngeen ñuy lancé booy wane ne léegi mbumbaay mbumbaay yooyu jeex na am déet lan la. Euh, am nga ne l'autre jour le président Guirassy ñu koy nuyu de passage. Euh. dafa mu ngi koy souligner que ne. c'est pas c'est Bassirou Diomaye lui-même moom moo bëggoon ñu defal ko benn passation de service dans la solennité. bëggul mbumbaay kii nii. parce que dañoo xam ne le Sénégal dañu nekk ci urgence. Mmh, urgence bi dafa am lu bëri loo xam ne nii mmh. dafa sooxe. yu bëri yoo xam ne nii vraiment nit ñi dañ koy yàkkamte di ko ci mm-hmm. xaar mm-hmm. moom il a compris ça mm-hmm. le président Ousmane Sonko aussi comprendre que ne actuellement euh, nit ñi amatuñu temps Sénégalais dañ leen yónni pare yàkkamti leen donc l' essentiel la ñuy def li nga xam ne mënta ñàkk moom la ñuy def bu ñu pare on passe au travail ensemble nag avec tous les Sénégalais parce que yaa ngi dégg message bi nga xam ne nii le président Bassirou mu ngi ko doon message mu ngi ko doon euh, lancé jour bi nga xam mooy première sortie après sa euh, son élection. Mm-hmm. donc dafay woo képp koo xam ne rek sénégalais nga force vive de la nation sénégalais ñoom ñëpp àndandoo takk liggéey defar réew mi. Mm-hmm. et l' exemple euh, la jeunesse patriotique démarré nañ ko. boo mm-hmm. xoolee démb Sénégal partout gis nga jeunesse ni ñu mobilisé wu di defar dëkk bi set setal. dindi canalisation dindi salte bi may jël euh, may nuyuwaale de passage tamit la JPS de Kaolack bi nga xam ne démb ñoom ñëpp ñit ñi gis nañ leen si rue euh, yi ñuy dindi li nga xam ne nii mooy salubrité ndax ku ne Kaolack nag ah, ne salubrité donc ñoom bi nga xam ne jug nañ takku préparé ñu sax li nga xam moom mooy programme bi gars yi déroulé ko mais dañ jàpp ne réew mi ñun ñëpp ñoo war a takku àndandoo ak le président accompagné ko pare tabaxandoo ko incha allah. incha allah en tout bu ñu ko defee noonu dina baax. Mhm. mais koo xam te ni gunge na ko tamit àndandoo ak moom ngir bëgg a tabax réew mi mooy Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko ñu bari di san sant ay laaj naan Ousmane Sonko lan moo war a nekk apportam ci gouvernement bi. Ah, ah, yow selon yow suñ la laajoon en tant que ku bokk ci ñoom jege leen loolu itam ban mm. apport la Ousmane Sonko mën a am bu ñu fàtte ne euh, Bassirou Diomaye c'est un candidat qui a été désigné par le président Ousmane Sonko. waaw président Ousmane Sonko nekk un porteur de projet un projet muy le projet PASTEF un projet de société. Mm-hmm. projet boo xam ne ni euh, li ci base bi mooy le changement un développement mais aussi ñu am mu am une rupture entre ce qui li fi nekkoon ak li nga xam ne ni moom moo moom moo moo fi war a nekk. Mm-hmm. ñu war ko jëmmale ngir defar li nga xam ne moom mm-hmm. mooy Sénégal. kon kooku apport am ñëpp xam nañu ko. Euh, ndax amul différence entre ces deux personnes. parce que kan Bassirou Diomaye c'est un candidat qui a été par le président ni ma ko waxee woon Sonko moo ko joxoñ sénégalais yi fal ko donc mhm. apport bi nga xam ne le président Ousmane Sonko war na ko indi ci ci ci ci gouvernement wu Bassirou Diomaye je pense que loolu sénégalais yi xam nañ ko mooy programme beeg lépp ndax lépp nag Ousmane la ban poste lañ mën a xaar ci moom loolu moom nañ suivre <laughs> nañ suivre rek. waaw <laughs> yow de yow de ba est-ce que consulter moo tax bëgg wax sax. wala président Bassirou da laa commencé. amul loolu. <laughs> Pastef moom wax dëgg yàlla amul loolu. et la coalition su may may faral di wax Pastef parce que nag le noyau c'est Pastef. Mhm. donc euh, am na yoo xam ne yenn pratique yoo xam ne amul biir biir coalition bi amul biir Pastef. donc on suit am nañu kilifa ñu ngi topp si ginnaaw lu mu tracé rek. loolu mu def lu ñu nemmeeku mooy. donc nee na moom tekki na ndombal tànkam ci lépp lu mu yoroon ci Pastef mhm. déjà loolu c'est c'est une bonne nouvelle donc mhm. vu que ne dañ doon yàgg di wax ne cumul fonction yooyu baaxul mhm. day diisal tamit nguur day diisal tamit la personne moom mu ñëw rek d'emblée def direct rek def loolu loolu tamit qu'est-ce que cela vous inspire bon c'est loolu du surprise parce que texte parti bi moom moo ko imposé à tout chaque chacun boo xam ne dafa bokk biir Pastef même bu fekkoon président Ousmane Sonko la ñu fal bu une fois ñu ñu fal ko si bopp réew mi day génn day day démissionné poste bi nga xam ne ko ëpp. bi ñu leen di fal yéen député par rapport ak cumul bi li ñu waxoon c'est parce que c'était très clair c'est bon ñi nga xam ne c'était de mal intentionnés rek ñoo doon jël di def manipulation mm-hmm. mais li ñu waxoon c'est très clair en 2019 programme bi nga xam ne le président Ousmane Sonko tegal tegoon na ko def ci mhm. boole woon ne dafay interdire tout cumul de mandat une fois au pouvoir mhm. mais yegg seeguñu woon au pouvoir ñu ngi soog a yegg si au pouvoir bi ñu yegsee au pouvoir je pense que l' exemple que Bassirou Diomaye a donné jox na raison li nga xam daan nañ ko waxoon nañ ko depuis 2019 pour wane juste que ne logique bi nga xam ne nekkoon nañ si démb ak barki démb ci la ñu nekk mhm. cohérence rek incha allah waaw loolu la ñuy xaar ci yéen. <laughs> waaw mais moom acte bi mu def moom bi mu posé gu moom. lu foor la te te lu ñuy saluer la. Mhm. mais leneen loo xam te ne nii xaw ma dañ koo saluer ñeen ñi saluer ko mooy. Mhm. Euh, maa ngi ñëwaat ci Bassirou Diomaye Faye ko la personne de Bassirou quoi mais mhm. euh, le président de la République Macky Sall. ay waxtu moo ko desee ngir mu génn ci réew mi. mais moom. acte yi mu posé moom mooy euh, à deux jours ou trois jours de la fin de son mandat. mu ngi def des nominations par si par la Cour suprême ah ak euh, lu mel ni ay CSE yeneen ak yeneen. Mhm. RTS euh, mhm. donc à quoi lan lay jouer quoi lan lan ngay lan la mën a lan lañ mën a jàpp ci loolu quoi lan lañ ko mën a analyser interpréter ko kaakam. ah de toute façon Sénégal yi tànn nañ njiitu réew bu bees. Ah. biñ ko tànnee rupture tax ñu tànn ko. Hmm. moom il fois que mu jël service moom dina jël décision yi nga xam ne moo nécessaire par rapport à cela. Hmm. beneen bi rek on va rappeler que ne dans notre programme muy au conseil collectivité territoriale ak ay ay CS. E. Hmm. yooyu dañuy abal. parce que. bu hmm. fekkoonte ne am bu fekkee amul benn apport boo xam ne nii dañ koy apporter euh, sénégalais yi. ou hmm. bien waaye dañ nekk un coup. Hmm. dañuy maanaam ay institution la dañ leen teg ñuy dund si ko population tout simplement mais gisuñu benn njëriñ boo xam ne ni dañ koy apporte sénégalais yi donc loolu daf fiy jógee comme ni ma ko waxee woon rek le président Ousmane Sonko lépp loo xam ne waxoon na ko ci programme lépp loo xam ne nii taxawoon na pour dëgmal ko rek loolu da koy appliqué incha allah par rapport ak nomination yi nag ñeenti fan la ko dese xaw ma ñaari fan ko dese. Mm-hmm. une fois que la président de la république Bassirou Diomaye fay toog moom dina jël décision yi nga xam mais ndax nekkul lu mun a yàq lii di transition bi entre moom ak euh, président Bassirou Diomaye Faye également parce que loolu la ñuy nit ñi di wax naan est-ce que lii du sabotage est du. lu mu si ak lu mu si mënti jublu rek euh, euh, président Bassirou Diomaye il est assez responsable pour prendre des décisions yi nga xam ne ni ñoom ñooy ay décisions cohérentes lay doon yu conforme yi nga xam ne ni moom la population di xaar si moom. Mhm. Mhm. alors beneen bi mooy sànq maa ngi ko doon wax coalition bi Diomaye bi donc coalition la bu ëmboon ñu sax. macha allah. ay entité yëpp man chaque jour dama koy wax ne mouvement la hétéroclite donc en quelque sorte dañ ci retrouver sensibilité yëpp donc. Mhm. Euh, instant bi lan mooy nekk ligne droite bi baa am ay coow ndaxte déjà gis nañu dernière euh, kii wu Ousmane Sonko bi muy wax naan fi mu toll nii na gars yi xam ne affaire yu du ay pàccoo nañ xam ne bu ñu paree donc dañuy dañuy gouverner selon ni ko Sénégalais yi bëggee. donc lan moo war a nekk liñ liñ liñ ligne de conduite bi actuellement. d'abord dañuy wax ni ñi nga xam ne nii euh, ñëwoon nañ bokk ci la coalition Diomaye président. Mm-hmm. Euh, nekkul woon Diomaye président rek moo fi nekkoon coalition. Mm-hmm. mais amoon na d'autres coalitions yoo xam nekkoon nañ suñu place. Mm-hmm. mais ñoom fi ñu gis seen bopp. moo nekkoon programme bi nga xam ne nii Diomaye président proposé woon na ko. muy un projet de société projet boo xam ne projet de changement la. projet la boo xam ne nii dafa ñëw ngir. vraiment jàppale Sénégalais mais suqali Sénégal. Mhm. ñoom ñu gis ne projet bii xëy na méngoo nag bëgg-bëgg bi nga xam ne ni amal nañ ko Sénégalais yi. Mhm. ñu ñëw adhéré signé li nga xam ne moom mooy charte bi nga xam ne ni moom moo leen moom moo leen lié ñoom ñëpp. Mhm. donc ñu dem si élection ba yàlla may ne ndam. Euh, li ci des nag mooy am euh, coalition bi dafa am kilifa am noyau. Mhm. décision yi nga xam ne war nañ ko si jël de toute façon ki nga xam moom mooy le concerné dina ko jël le président Ousmane Sonko nag waxam ba mu waxu toogul tey rek wax ko daf kaa yàgg a wax. Mhm. li mu waxoon démb loolu la waxaat tey rek Sénégal du gatu buñ koy paacoo. Mhm. li nga xam ne nii war na ko ca def ak poste de responsabilité yi nga xam ne nit ñi war nañ ko ci am ak. ku nekk rek say compétence amaana lim li yàllool mun na am bu soobee yàlla boo si war a jot jot ko. Hmm. donc on va suivre le président Ousmane Sonko. ou le président Bassirou rek euh, lu ñuy lu ñu dogal rek loolu la. ñoom ñaar ñu dogal Faye mooy le président Bassirou Diomaye Faye ak le président Ousmane Sonko donc ñu ñu ñu ñu réveiller les aspirations des de des ci changement jëm ci wàllu jeunesse bi. Mhm. donc yaakaar ki bëri na bëri na trop mais. balaa may dugg ci attentes yi eh, fi mu toll nii ndax eh, taxaw nañu tem ngir sauver Sénégal ci emprise néocoloniale bi nga xamante ne nii dañ ko daan nemmeeku mooy ñu mel ni eh, buumu njaam dafa nekk ci suñuy baat ah, ñu koy dund rawatina ñi nekk ci biti réew mooy ñi ñuy woowee nasaraan si. Mm-hmm. ndax am nga ci yaqin wala am nga ci yaakaar ak naka lañu fas yéene def ba loolu ñu sauver ñu ci. je pense que discours président Ousmane Sonko. tout temps dafa nekkoon dafa dafa basé woon si pour qu'il y ait une rupture rupture nag mooy li fi nekkoon ñu jëlee ko fi li fi nekkoon nag mooy dañuy gis ne étranger ñoom dañu amoon prise bu baax a baax si suñu réew ci suñu ressource ak su secteur hmm. amoon emprise secteur yëpp voilà moom mu yàgg a wax ne euh, contrat yi nga xam ne signé nañ ko fi bu toogee da koy renégocier hmm. donc loolu dañ jàpp ne loolu mooy am hmm. te lépp loo xam ne daal euh, dina libéral Sénégal lépp loo xam barrage la woon boo xam ne ni taxoon na ba xëy na ñun ñu war a développé développé wuñ le président Ousmane Sonko dina ko fi jëlee wala boog mu changé ko pour que vraiment Sénégal mun a retrouver wu mhm. euh, Sénégalais yi ci liñ bëgg muy un développement un changement ñu mun ko gisal seen bopp sous peu de temps incha allah alors Sénégalais ak développement ñu bëgg ko mais am na lu ngeen leen tàmmal déjà te toogu leen woon ci nguur ngeen toog ci nguur nag instant bi mhm. Mhm. ñu gën ci am yaakaar ndaxte dundee yaakaar moom lu baax la mooy waxtaan communication entre sénégalais yi entre yéen. baa loolu fas yéene ngeen ko conserver ndax nii nii yéen a nekk ci pouvoir bi ndaxte loolu gëm naa ne bokkoon na ci défaut yi régime bee passé euh, euh, defoon donc bii nii baa yéen ndorteel gi neex na baa fas yéene ngeen ko war a mën a continuer. ci nit moom defe naa li nga xam moom moo la fondé formé la ba tey ci accompagné la ba nga nekk au pouvoir loolu doo ko bàyyi. Mm-hmm. parce communication. moo ñu jëlee ci suuf bu yegg ba ba ba indi ñu tey jii fi ñu fi ñu toll donc nag liñ naan li bay daan dundee démb ba toll ni du ko bàyyi day yokk mais du wàññi du hmm. wàññeeku incha allah rabi. yow de accessible nga ñeneen ñi baax nañu accessible. ñëppay accessible. Ah. ñëppay accessible te xam ne ci ci askan la ñu bokk. ci boo rek di ko jot parce que askan bi moo ñu yónni et nous représentons le peuple et ce peuple là saa bu soxlaa dinañ ñu jot. le président Ousmane Sonko gis ngeen nekkul koo xam ne dafa ñëw tëju ba nit mënu koo gis le président Bassirou ku nekk gis na ni mu ëmbale nekk un sénégalais nag di sa famille est là tout le monde ñoo xam ne ni dañuy war a jot si ñoom duñ jot si ñoom. de mm. façon ci liggéey ci fulla ak ci fayda. d' accord euh, lan nga jàpp ne mooy urgence de l'heure loo xam ne nii Bassirou suba wala def nañu prestation de serment rek ci la war a sóobu. en tant que député teewal askan wi ca pencum ndaw réew ma xëy na yaa leen gën a jege sax ñoom de toute façon xam nañ ne buñ toogee réforme judiciaire dina am incha allahu rabbi jëm ci euh, naka réforme dina am euh, institution yi ku nekk les trois pouvoirs yi nga xam ne ñoo nekk si euh, réew mi aussi mm. dinañ fexe ba ñoom ñëpp indépendant leneen li nga xam ne ni c'est des manquements je veux pas aller très loin. xam mhm. naa ne incha allah rabi li si Sénégalais di xaar danañ dem sax au delà. waaw justice bi bëri woon na coow da ci at mi. loolu yëpp bu soobee yàlla solution yi taxaw na avec le président Bassirou Diomaye. incha allah loi d'amnistie bi ba bokkoo ci ñi yaakaar ne war nañ ko mën a xoolaat ndaxte ñu bëri nee nañu li fi faatu ci ay bakkan donc war nañ ko mën a xoolaat. loi d'amnistie bi buñ ko indee assemblée nationale. je pense que ku xool taxawaay les députés de Pastef rek di nga xam ne ñoom dafa am logique boo xam dañ koo topp logique bi ñu toppoon xam nga def nañ dem nañ commission sax def euh, abstention pour suivre ñëw fi nga xam ne ni moom mooy plénière devant tout le peuple sénégalais mhm. am question yu pertinente yoo xam ne nii parce que le président Birame Souleye Diop posé woon na ko mhm. par rapport ak ñëwñ ngay cité mooy ñi nga xam dañoo génn àdduna mhm. loi bi ñi leen faat ndax da leen di tenir en compte oui ou soo gisee mu pousse question yi ba mu leer c'était pour éclaircir la lanterne de Sénégalais. Mm-hmm. leer na nañ bi mu demee ba leer ñun on a voté contre. Mm-hmm. puisqu'on a voté contre nag dañuy topp logique boobu dañ koy topp. Mm-hmm. lépp loo xam ne war na si. lépp loo xam ne droit la lépp loo xam ne euh, war nañ ci topp nit wala leneen ak leneen rek ñi nga xam ne ñoom lañ teg tey jii nii ki nga xam moom lañ fi teg mooy le président Bassirou Diomaye bu sooba yaral lépp loo xam ne war na war na te mu nekk attente population bi dina ko ci def. dund gu cher <laughs> loolu moom xam nga ni urgence la. <laughs> <laughs> la mais incha allah yàlla baax na loolu urgence la boobu moom pour man. jo njoobeen yeeg ñooñu moom. waaw njoobeen yi waa caameen xam naa ni ku leen wàññi leen ceeb beeg diw bi moom ñoom dañuy gën a kontaan te loolu urgence la. waaw loolu mm-hmm. urgence la urgence la yàlla baax na. yàlla baax na mm-hmm. alors euh, ca ca Kaolack laay lay delluwaat euh, ginnaaw Kaolack sax balaa ma fay dem ma dem ci assemblée nationale donc euh, xam naa ne lu yàggul dara. Euh, mënees nañu di dissoudre euh, assemblée bi. donc ngir indi leneen mais mais mais bu leneen di ñëw itam lan moo war a nekk euh, coppite gi ñu ci war a dolli ba tax lépp mën a di jaar yoon parce que assemblée souvent dañuy gis ni muy doxee yéen yow yaa nga fa témoin oculaire nga donc ci vote yi ah ci type de député bi ci lépp ak lépp ak lépp yan réforme moo war a jëm ci ci fi nga xam mooy pencum ndaw réew ma di assemblée nationale. ba tey li may wax rek je veux pas aller très loin jiitu nit mpaaka <laughs> ci mbaram mu ne ko ci <laughs> bëgg mbaram mais de toute façon nañu suivre euh, comme de deux jours lañ ah, nekk passation de service décision boo xam ne rek war nañ ko ci jël rek ñoom dinañ ko ci jël insha allah rabbi mais euh, par rapport maintenant ak type de député yi nga xam ñoom ñoo fa nekk am nay député yu fa nekk yu rek ay ay républicains ñoo xam ne ni vraiment xam nañ li leen fa indi xam nañ ne peuple moom moo leen fa yónni woon xam nañ ne dañuy représenté une frange de la population respecté nañ ko def nañ seen liggéey ni mu waree maintenant ña amoon na nag ay bërëb bi yoo xam ne nii ñëpp gisoon nañ seen seen posture seen taxawaay seen façon wax ak seen façon kàddu yooyu yëpp amoon na fa te yooyu yëpp dañ yooyu moom jàpp naa dootu amati Sénégal incha allah waaw yooyu moom si boo doon def euh, Euh, Kaolack donc dañuy wax souvent ne benn la ci dëkk yi nekk ci Sénégal yi ñu jàpp ne mhm. euh, bu nga baal ma nag baal waa Kaolack baal ma teen mais bu delluwul ginnaaw avancé wul depuis ba ñu jëlee indépendance ak léegi mhm. lan moo manqué Kaolack Kaolack la fa manqué woon rek mooy d'abord am ay responsable yoo xam ne dañ faa nekk pare manqué volonté manqué volonté dans la mesure où ñun ñaata ministre lañ doon am gouvernement yëpp ay premier ministre rek lu ne am nañ ko à mm, Kaolack moom bëri na DG am nañu ay DG am nañ ko fa ay autorité amul gouvernement mu sa teg tegu fii Sénégal rek te amuñu ay ministre mais munoo taxaw tey nga taxaw joxoñ benn mbir nga ne lii la autorité bii def pour réew pour pour Kaolack amul mm. Kaolack fa mu taxawoon rek la taxaw mm-hmm. ak position géographique bi nga xam ne Kaolack occupé na ko ak tey jii développement bi nga xam ne ñu jàpp ne Sénégal sax man dama koy faral di wax sama discours on ne peut pas développer le Sénégal sans pour autant nag ñu tëb sans pour autant euh, développer Kaolack mënoo bëgg a Sénégal pare tëb Kaolack man sama gëm-gëm la te loolu laa gëm te fu ma dem dama koy wax parce que position géographique bi nga xam ne ni ñun occupé nañ ko ñun dañoo nekk ci cœur di Sénégal Kaolack est au cœur di Sénégal mm-hmm. donc tey boo boo jógee euh, nu mu tuddati Gambie sous raison bi tu passes par Kaolack nga jóge Mali tu passes par Kaolack tey jii Kaolack nekk zone boo xam ne nii yàlla des bàyyi desaluñu dara am suuf am lépp ba pare dara baarewuñu mais mënuñ sa développer la commune balaa may njëkkee sax dem ba si kii bi ci ci ci ci si euh, département bi mais da nga njëkkee dans la commune de Kaolack rien n'a changé rien ni damay faral di wax Val jooju Ndiaye sax bu yeewoon dina mën a njibik biir këram parce que amul dara lu bees loo xam def nañ ko Kaolack maintenant yaakaar boobu nag la Kaolack waaye am moom la Saalum Saalum yëpp am jàpp ne Bassirou Diomaye mii dinañu changé Kaolack. moo tax ñu sa vote massif laa nga gis ko ñu gagné nag au la le département et la région de Kaolack. Mhm, félicitations en tout cas mhm. mais mais honorable yow laay ji ci yow laay jeexale mooy yow en personne. Mhm. Euh, lan moo la ci dugal ci politique. noo def ba nekk alhamdulilah député tey jii nii. Mhm. ak itam lan mooy sa relation ak Ousmane Sonko président Ousmane Sonko ba tax nga dem ba bokk ci partem ak mhm. yan jafe-jafe nga dund ci engagement bi nga nekk. man personnellement wax dëgg yàlla man mosuma bëgg politique. Hmm. su ma waxee sama digganteeg yàlla. Euh, benn yoon laa mosa taxaw ci ndaje politique je faisais la cinquième je pense que c'était en 2005. kii ñëw Ablaye Wade ñëw Kaolack suñu benn tonton yóbbaale ñu. Mhm. naaj bi tàng ma miir fa sax. <laughs> jour boobu laa ne man dootuma taxawal benn politicien si naaj. parce que boobu laa. Mhm. jour boobu laa gëj taxaw si biiru politique wax dëgg yàlla. Mhm. première année bu ma njëkkee voté sama àdduna c' était en 2017. 2017 et c' était avec le président Ousmane Sonko. loolu dama si sant yàlla bu baax. politique lu ma ci dugal dama toog comme bi ñu nekkee élève ñun Thomas Sankara suñ idole la woon. dañ ko doon dañ ko doon suivre ay révolutionnaire ay Thomas Sankara gars yi noonu léegi Nelson Mandela ainsi de suite léegi Aline Sitoé Diatta aussi mhm. donc euh, benn jour dama dama dem école wàcc boobu ñu ma affecté ñaaxaar bi ñu ma affecté ñaaxaar comme da ngay wéet en 2015 waaw man je suis prof de lettres anglais de formation ah, léegi bi ñu ñaaxaar donc boo wàccee dangay wéet doo am looy def damay tëju ma sama benn collègue maam jaara dëkk Géejawaay donc dañuy tëju boo tëjoo da ngay wéet ma dugg YouTube suivre benn émission euh, Ousmane Sonko boo xam da ko def ak euh, kii nii ak Pape Alé Niang euh, fait 2STV yi après mu sentir benn affaire sama xol en fait ma ni kii daal man su kii kii daal man kii dina tax ma politique en fait bëgg fas yéene naa ànd jug xeex ngir kii nii jour boobu laay demandé di demandé fan la fan laa mën a. ba ba ba rejoindre. Mhm. après ma def benn post sur Facebook benn pol benn patriote jël ko envoyé ko Kaolack ñu mettre ma en rapport ak Mbose Sow. Mhm. le coordinateur. après ñu ànd mu jël si ma moom ak Yunga. Mhm. ñu jël si ma ñu ànd. en ce moment ma ñëw fekk fa tamit benn sœur euh, madame Ka euh, ñu nekk ñaar jigéen ak góor ñi aussi je pense que six. six góor ñu ensemble nag ñu ànd boobu ba tey donc lii waaw ñuy huit deux femmes lii la woon donc ñun ñii la ñoo dem ñu départandoo affaire yi di liggéey ensemble wax dëgg yàlla ñu ñu encouragé ñuy may ma ñibbisi nag Kaolack di xëyee Kaolack di jàngale ji ñaaxaar di wàcc Kaolack di ànd ak ñi ñi ñuy def porte à yenn saa yi nga dem si kër boo demee expliqué kii mooy Ousmane Sonko wax jaajaaram impôt domaine bàyyi fa sa numéro téléphone nit woo fi nga bàyyi sa numéro téléphone ñu woo la bu ñu la woowee nag loolu mbégte la woon nag. ngay kontaan da ngay kontaan parce que da ngay xam ne am ngeen benn militant tey. donc foofu la ñu jaar ci loolu nag may rendre un hommage au coordinateur Mbossé Sow. Hmm. wax dëgg yàlla jàmbaar la bu ñu uuf ñun ñëpp waaw uuf nañu bu baax a baax a baax a baax. kon yaa Ousmane Sonko seen relation foofu la tàmbalee quoi. foofu la loolu moom ma dugal ci biir Pastef donc su ñëwee Kaolack ensemble fi muy dem ñu dem fa su paree ñibbi. parce que li ñuy wax Pastef du nit ki ngay topp mhm. mais lim proposé moom ngay jéem a message bi ngay jéema a jàllale vers la population donc loolu moo nekkoon objectif bi ñuy dem di dem di dem ba tey ji ñu dem ba man su suis devenu député si liste suppléant yi mhm. donc euh, loolu moo tax ma doon député bi ñu paree ñu continuer suñu liggéey mhm. ci biir département bi Euh, suñu Mojib aussi on a installé le Mojib en 2018 avec euh, la présidente nationale Maïmouna Dieye la grande leader macha allah waaw installé ñu en 2018 mm-hmm. depuis loolu ñu ne si di góorgóorlu di mm-hmm. góorgóorlu ba tey jii nii installé nañ Mojib Mojib euh, pratiquement ci commune yu bëri dans le département de dans dans le département de Kaolack mm-hmm. donc foofu aussi ñu am ay jigéen yu jàmbaare ma leen di rendre hommage jigéen yu dëggu jigéen yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy xàccandoo di dóorandoo gëm projet bi nag en tout cas plaisir la mais ba joto ci am jafe-jafe rek ci durant xeex bi bon xeex bi ku ne rek jël nga sa wàll mais loolu garaawul parce que loo si dundu benn rek sa morom dund na lu ko gën a métti donc jàpp nañu lépp su metti woon rek fàtte nañu ko parce que li ñu xam ne moo nekk objectif la nga toog nga fàttaliku rek nga fier sa bopp surtout loolu dafa am solo tamit. Mm, par exemple mu metti mais ngay toog bu ci yàgg nga fàttaliku rek fier sa bopp ko bon dama daan par exemple li ma daan def dama daan dem ñaar pour ma jógee waan wàcc école su ma ñëwee sama maa ngi amoon ñaari doom kenn ki mu ngi am 6 ans kenn ki boobu mu ngi am 4 ans dama ne doon tëj. Mhm. ci kër ga ñoom ñaar ñëpp su may dem wan leen dàll bi ma sol. Mhm. ne leen bii laa sol su ma ñëwee su ma fëggee si kër gi pour ñu xam man la donc su ma su ma fëggee ñu yor ñu ne maman la voilà dañ ñoo tijji xam ne man la bu dee keneen boo dugalul dàll bi duñ la tijji boobu toom yi ndaw yooyu noonu laa am euh, beneen bi xëy na <laughs> mois de mars 2021 boobu maa ngi ëmb ba am 8 mois et demi donc euh, voilà bi ñu bi ñu jàppee président Ousmane Sonko ci laa génn ñun ñëpp dajee xeex ji donc ce jour là nga nekk ci <laughs> bien sûr après ñu génn xeex jour boobu coordinateur bi ma gisee sax dafa tiit ma ne ko mënuma toog parce que bi ma gisee image bi rek booba mun a xamatuma fan laa nekk donc sama ngor mooy moon toog si biir kër donc on était sorti ñu dem comme tout le comme Linguère yi ni ñu ko defee woon fii à Dakar ñu jàpp leen comme ni ko doomu réew mi yëpp majorité defoon téye noonu na mënuñ ma woon jàpp parce biir bee taxoon donc <laughs> doomu procureur nga honorable nag moom nag honorable nag yaay yaa <laughs> ci génn ba doomu doomu kii bon <laughs> te te sacrifice yooyu boo ko gisee am na ñoo xam ne dañoo génn dañoo ñàkk seen bakkan kon ñooñu noonu ñoo ñoo ëpp sacrifice mhm. am na ñoo xam ne dañ leen jàpp des mois à la prison mhm. muy ay jigéen mhm. ak ay ndaw donc am ñeneen ñoo xam ne tey taamay mun a jëy boo xoolee prison lañ ko jàpp ba tey jii beeki la yor hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc hmm. am na ñu bëri te sacrifice yooyu yëpp nag tey c'était pour changement am hmm. te kenn gën a sacrifié wu ki nga xam mooy ndeyu mbill bi mooy le président Ousmane Sonko mi nga xam daal sacrifié léppam ngir Sénégal kon kooku boo xoolee ci moom da ngay jàppante foo dara kon dañuy sant yàlla bi nga xam ne yàlla indi nañu bu fii ñu jàpp ne tamit dañuy soog a door li nga xam ne moom lañ doon xeex démb ak barke démb ba mu jaroon loolu yëpp yàlla teg na ko suñu loxo léegi li des mooy gën a takku nag accompagner le président Bassirou Diomaye Faye ba projet bi nga xam ne daan nañ ko dig Sénégalais yi ñu réaliser ko loolu mooy objectif bi. am na solo yàlla nañu ci yàlla jàppale. amiin waaye courage et bon succès pour la suite. merci beaucoup. jërëjëf euh, mbégte laa la ci suma mhm. plateau euh, honorable député mhm. merci beaucoup merci le plaisir de partager ñu lay gërëm di sant bu baax ci invitation bi euh, di nuyu nag gërëm bu baax a baax la population Kaolack waas mhm. ci mobilisation bi nga xam ne ni mobiliser woon nañ ko ci campagne bi boo xoolee suñu sortie yi nga xam daan nañ ko def tous les jours aussi bien dans le département que dans la commune mobilisation yi am solo yi nga xam ne daan nañ ko am ci biir commune bi ak département bi te loolu yëpp engagement la woon envie ak hâte euh, d'avoir un changement yàlla indi na changement boobu noonu kon sant nañ yàlla bu baax a baax. Mhm. Mhm. ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax. en tout cas yow tamit ak gërëm ñeel na la merci beaucoup. merci beaucoup ah, jërëjëf honorable député Rocky ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp ñoom waa Kaolack suñu xarit lañu. Mhm. bu ñu fa demee du ñu tumuraanke benn yoon ndax papa waaw papa moo jàpp ci émission ba taxoon lépp mën a yem moom waa Kaolack la léegi <laughs> <laughs> mais xaritu Serigne boobu la <laughs> donc ñoom ñëpp ah ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ah ñi dëkk Kaolack ñëpp ñi dëkk Sénégal ñi dëkk dëkk Dakar dëkk fépp fu waay mën di nekk rek du ñu suivre ah. ci Sénégal set cant ak ngërëm ñeel na la moo xam nga nekk ci réew mi mbaa nga nekk ci biti réew mi ah, vraiment plaisir ma dalal ko ci suma plateau honorable député Rocky Ndiaye di ko disponible macha allah ku ku yëg nit ah merci beaucoup en tout cas euh, moo tax euh, mbégte la am yéen itam saa su ne may ànd ci émission bi papa mention spéciale à lui ndaxte moom moo jàpp lépp ba lépp daal di yemb ah, ci émission bi donc euh, cadreur bu mag bi en tout cas on se donne rendez-vous mesdames su neexee borom bi ah, ci kanam tuuti ak seen émission yi ñu leen di jox surtout nag salaam salaam Sénégal nga xam ne 22h la incha allah ñu àndandoo ci yéen defandoo une émission de qualité mais d'ici là restez branchés scotchés et jamais déconnectés sur sénégal7.com jaa ngeen jëf merci au revoir.